y dafa un message pour vous ne war nañ vous est li Sénégal bari le te ñi bi vous kenn ne population démunie ñi vous coow bi ñi vous tey nous ñoom occupé les réseaux sociaux dem journaux yi di wax ñi ngi ci radio yi télévision yi Goudi ak conférence de presse les point de presse nous ngi occupé média Sénégal nous ngi occupé radio. Nous avons bari Sénégal Nous musu leen jël pepp pepp ne Ce c'est pas normal ça essentiel bi tey Sénégal ait un mooy inondation bi ndox mi bëri na moom lañu doon ñaan yàlla waaye ndox mi bëri na bëri boo xam ne mi ngi yàq te du Sénégal rek lay yàq soo demee Amérique am na inondation ñoo ëpp alal ci àdduna te seen kër yi ñi ngi ci biir ndox mi ku dem tey jii euh, Amérique ci état di sud yi di nga gis ne yàq nañ fa ndox bu bëri nga dem Inde Inde ñooñu ëpp population ëpp ñu doole ña ngay inondé nga dem France ña ngay inondé Europe dëkk ya fa kenn xamul nañu toll nga dem Canada ñi ngi inondé ñu ne Sénégal warul inondé am na ñuy wax sax ne Macky sàll moo tax inondation bi te li ma leen wax ñooñu di ko wax ndax fekk si nañ leen fii jënd leen ay moto pompe ndax fekk si nañ leen fii jox leen ceeb jox leen diwlin jox leen ay matelas ndax ñëw nañu sax di leen jàppale ci ngecc ndox mi ngeen di def waaye ñu ngi ci rajo di mbel mbeli guddi ak bëj sénégalais yi sont ñi nga ne Ils là. di assister ñi fiy assisté. ci qui su mettee ñi fiy ñëw ci ils ci ne su ñi fiy qui ci di su ñoño ndax ay kese amatuñu programme lu le président Macky Sall lu mu depuis ses 9 ans Nous bëggu en une journée ben inondation wëlbati ko ne me président Macky Sall def fi dara man mi doon ñew fi di fi joxe ay moto pompe caaro ji de kaw jaksaaw depuis 2008 mais gis na la le changement nañu ñëw idoti euh, audité fi nañu ñew audité fi dinañ xamné amna luñ fi def ay infrastructure motax tay tey bi may ñëw xuusuma ci ndox mi fi yag na fi ñëw di xuus ci ndox mais ça c'est des réalisations fii rek c'est un exemple na ñëw population Sénégal lay waxal ñi nga xamné way keuyit bind ak wax ak saga ak tuumaal nit ak katch non lañu ñu dëkkee xase mënu ñoo yor Sénégal té duñ ko yor duñ ko yor tey duñ ko yor ëllëg duñ ko yor gannaaw ëllëg ndax matuñu ko